seene ànd ak moom ci nu rafet ndax man nañ ni fii ci dëkk bi fi la juddoo fi la yaroo man maa nga jóge Thiès ñëw sëy fii fekk leen fi ba ma fi ñëwee ba léegi Ibrahima ka ci politique laa ko fekk bi ma ñëwee mën naa ne ñoom ñoo ma tett ci politique ñoo ma dugal ci politique ma ànd ak ñoom ci politique ba jëmmi tey ji ma am deux mandats conseil nekk vice président conseil rural bu Dala kon man naa ni Ibrahima ko bu taxaw fii tàllal loxo ni askanu Dala nañ ko jàppale war nañ ko mën a jàppale te dinañ ko jàppale ci sama gis-gis bu soobee yàlla jàppale bi mooy passé wu li mu bëgg mm. mooy parti la paix bi mu dugg ñu ànd ceeg moom jaayale ko kart yi sumbandoo ko ñoom songandoo ko moom ba ko incha allah ci kàttanu yàlla. lépp loo xam ne bëgg na ko war na ko fee mën a am waaw ça ci moom rek xam nga nit ki tamit lu ngeen bokk bokk euh, mu bëgg dara ci yow xam na xam na nan lay def ba am jot la waaw waaw loolu moom am na parce que ñun suñu village mu ngi fii ci gannaaw tali bi daala pël 2 am na population boo xam ne mën na jàppale Ibrahima Kane soxla mairie bi mais su soxlee ñu jàppale ko ñun xam na nan lay def ba ñëw foofu parce que fii la juddoo kon xam na village bi am na ay réalité bu soxlaa village bi na ñëw foofu wax ak ñun ñu teg ko ci yoon bi. ndax defe naa ne ñun suñu dee wër korog carte yi ñëwee ba léegi ñu di ko placé dem di ko versé ji korog dala la njëkk a ñëw joxe fi ay carte kii su rooti. di rootali kenn di ko sotti ci sendalam defe naa ne mu root tey sot ni ci ndaam moo gën a leer man nag dama bëgg nit ku bëgg mbokkam ndax man damaa bëgg sama mbokk Ibrahima daa mel ne dañoo bokk ndey ak baay ndax ci dëggu ci fulla ci fayda ci ñàkk caaxaan ñun suñu Ibrahima mii bu soxlaa meeru dala bii suñu su fekkee ne ñun waa Touba dañuy déplacé wu ñëw pour mu jot dala da koy jot ñun. waa Touba laa wax de su Ibrahima soxlaa mairie dale bii su fekkee ne ñun xale yii ñu àndal jeunesse bii dañuy jóg pour ñëw bindu fii Ibrahima jot dala ñun dañ koy def ñun jigéen ñi te ñu dala waaye en cause de Ibrahima moo ñu ko ji yéen ñi dëkk dala nag su ngeen mënta jënd ci carte yi Ibrahima indi di ko jaay muy góor muy jigéen defe naa ne du ngeen jàppale Ibrahima pour mu jël mairie bii wala mu def dara wala conseil am fii ci dëkk bii foofu lay waxe dama bëgg ngeen jóg takku dañ daan jëli politicien indi ko ci biir dëkk bi mu indil leen ko ngeen ànd ak moom di jóg ko daanu ñaat téeméer yi cay jóge wala ñeenti téeméer yi cay jóge wala juróomi téeméer yi cay jóge loolu jariñu leen dara tey seen doom dafa soxla da ngeen koy jox te fii la dëkk man gawma ku jóge ci àll ba ñëw bëgg a defar sama dëkk man xam nga fi lan laa gëm sama man mi juddoo sam fi ma dëkk mun naa mën ko ñëw defar sama dëkk man de géejawaay laa juddoo falaa yoroo falaa màgge koroog ba laay wadd ne ñun ñu jóge fii dem jaxaay damaa jóg taxaw buntu police na leen buuse wu ñu mètre fii lañ juddoo koroog la laay wadd defar bassin bi nekk géeja géejawaay tey ba ndox mu ñëw jàll buuse wuñu ba tey fi lañ toog kon Ibrahima mii bu soxlaa képp ku ngeen àndal ci politique mun naa mën a ko yàq ngeen ko ak kum mën a doon ndax tey sama xol dafa sedd ndax mel na ne tey parti bi nga xamante ne tey mooy parti de la paix man mii de soobu naa ci biir jàmm ji ndax lii tey jii ma am ci sama dëkk moo ma gënal or moo ma gënal wurs moo ma gënal ngalam. comme ni ko Soxna Fall waxee rek keroog bi nga xamante ne tey jóge nañu Dakar professeur Issa Sall woo ñu présenté ñu li nga xamante ne tey mooy parti de la paix mu jox ñu mille cartes kero ba ñu déparé dakaar dem Kër sañ Mountakha séddale li nga xamante ne tey mooy quartier yi biir Touba bi ñu jógee dala gii lañ ñëw Asoufa la ngi ni ak euh, Naar ak ñoom Ali ñoom Gadd jël nañ ay bloc ñu njëkk a seen bloc dala ci la bokk. kon loolu dama leen ci remercier bu baax ndax ñoom dañu jël ay engagement ñu benn ñu ñaar jëluñu ñett ndax dañoo wax ne yëfi suñu yëf la kon kenn dañu ci ëppale. lii nag mbóot da cee dugg ndax tey jii kenn ku ne xam na ne période bii nga xamante ne tey dañoo dugg li wër Touba di séddale ay carte yoo xamee ne tey carte yu cher la comme ni ñu ko waxee ndax carte 1000 francs am ñoo xam dañuy jënd carte yi ko joxe waaye ñun carte yi képp koo xamee ne tey da bokk yaa jëndal sa bopp carte carte bi ñaar téeméer lañ ko am na ñu jaayee ñaan ñeen fukk am ñu jaayee téeméer am na jaayee 100 kon yëf yi dëgg la muy parti de la paix da leen a jaral ñu jël ay engagement xam ne Sénégal tey jii toll na foo xam ne tey jàmm rek moo mën a lijjanti mbir mi te kon ci yi professeur Issa Sall la jaar ñëw ci suñuy loxo ñu amaat fierté nag Cheikh ñëw tey ci commune Dalangaabu war ñëw gën a yaatal li nga xamante ne tey mooy bànqaasi parti bi jaay suñuy carte fas yéene nag lépp loo xamante ne tey ab parti da koy soxla ñu yëkkati suñu loxo soxla ko dañoo jëm ci ay élection locale comme ni ko sama jigéen ñi waxee damay dellusiwaat tuuti rek ci taarix parti bi nga xamante ne tey moo ëpp doole ci Sénégal di parti PDS keroog bi nga xam ne tey ñëw na biir dala ñu nga daan daje fële ca Njóobeen nga xam ne ñetti ñetti kër ñoo fa nekk ci jamonoy socialiste laa jëlee parti foofu indi ko fii ci école yi ñuy daje di def li nga xamante ne tey réunion asufaal mii du ma bàyyi fii ak ñeneen di defi réunion di defi réunion ba parti démocratique sénégalais am li nga xamante ne tey mooy pouvoir fii ci nga xamante ne tey mooy commune Dalla ngaabu en 2000 ñu jël suñu frère def ko tête de def ma tedd de liste proportionnelle kii wax na ko léegi daan ne da ngeen a yàgg a toppee déedéet Sénégal li ko yàq mooy leader yi nga xamante ne tey dañuy dañ leen di jox ay parti ñu dugg ci biir gox goxaan yi yàq li nga xamante ne tey mooy gox yi ndax dama ci joxe exemple suñu frère bi fi njëkk a falu ci PDS Omar Sarr moo ko fi tagoon te loolu du yoon askan bi ko fi war a teg nous disons la vérité am réew feeg jëluñu tête de liste teg ko ñëpp watal ne kii tey jii moo war a falu moo war a yor dëkk bi waaye ab leader mooy jóge fële ci àll ba teg fi nit bu boobaa dëkk ba li ñu soxla duñ ko am ñun d' accord nañ ci li nga xam ne te ñu ngi koy wax ci liste yi. élection mënoo caa dem ci liste yoo xam ne seen ñii dañoo taxaw wax ne liste yi dafa taq ñii taxaw wax ne liste yi taqul waaye li leer te ñu yàgg politique ñu jëlaat liste yi defaraat ko defar gi mooy dëgg na nañu jël ki nga xam ne seen tey mooy tête de ñu ne kii kat waa Dalanga bu ñëpp kii bu buñ ko wotalee bu gañee mooy yore maire bi mu leer ci bopp ñi nga xam ne seen te ñu ngi wote ji waaye wote ba pare tey jii lu nga def ko. un récupérateur jóge fële ñun suñu parti dafa dàq lool Golo di bay Baba di dundee parti la paix dafa dàq lool kon tey jii ñun suñu jëm bopp li ñu bëgg di ko tàllal loxo sénégalais yi xam na nax yi dafa war a jeex parachute yi dafa war a jeex tubay paate yem ci boole képp dafa war a jeex tey jii xale yi wax nañ ko bu ñuy séddale yemale ko seen bopp bu ñuy jaay jaay seen bopp buñ dee may mbay seen i biir tey jii même ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu social politiciens yii nekk ci biir pouvoir bi lépp lu ñëw pour ñi nga xam ne néew ju doole yi sax xeebuñu ko seexluwuñ ko dañ koy jël